kon sëñ bi ñu ngi lay nuyu di nuyu responsable politique yi fi teew yëpp ci parti yëpp. la ma ko waxoon ca laa nekk te du daj lu ma am jàppale naa leen ko ngeen xool nu ngeen ko defee mais soxlawul ngeen di organiser ay ndaje noonu laa ko waxee ci kanamu responsable yëpp sama diggante ak Cheikh Abdou samedi la ak dimaas bis xaju fi ndax du tey seetlu nañu ne gouvernement yi fi jaar yëpp. amuñu ministre bu dëkk biir Touba amuñu directeur bu am doole bu dëkk biir Touba ñaari directeur lañ fi amagun muy Cheikh Abdou loo ak directeur Khadim la te xëy na seen doole bariwutoon liñ ci amaat mooy daas bi ñu fi am muy Ami Mbacké jàmbaar la mais doole ji des na mais kon li gën ci ñun tey ñu fàtte suñu bopp fexe yow mii président de la république def la ministre mbaamu def la directeur bu am doole boo xam ne mën na doon jariñul pa dëkk bi il faut ñu waxante dëgg bu ñu jëlee sunu bopp ñuy xëccoo naan man la ab laat man la diw man la diw loolu amul njëriñ ku ne war ngaa xam ne wane sa bopp àggatuñu ca ku ne wane nga sa bopp ni ko war a wane li ñu war war mooy suñu kaadar yi ñu am ñu wan ko état bi wan Sénégal ne am nañuy cadre te cadre yi fi nekk yaa ci jiitu ci suñu parti. jataay bii ñu teew nag. Euh, jataayu mbégte la ñu teew fi ànd ak délégation bu mag diggante président Macky Sall ak président Idrissa Seck li ci xew umpul kenn ñëpp xam nañ ne seenub ànd rafet na rafet boo xamante ni ñun li ciy suñu devoir nekk ci suñu warteef mooy rafetaay boobu ñu gën koo yokk li tax ñu koy gën a yokk nag lu mel nii def cee bokk ndax lii ñu def nii tey def délégation ñëw fekk si sëriñ Cheikh Abdou ci jataay bu am solo bii nga xamante ni woote na ko muy jataay boo xamante ni mën nañ ne mi ngi liggéeyal président Macky Sall waaye liggéey ba ca ëpp maamam la koy liggéey muy sëriñ Touba ndax lii mu def nii tey yaakaar naa ku nekk bëgg nga koo def kon bu ko defee dañ naan ñun ñëpp la ko defal dañ naan président Idrissa Seck la ko defal dañ naan président Macky Sall la ko defal ndax dimbale lu mat 500 famille loolu du ay caaxaan te nekkul lu yomb. kon ñi nu ko poste ministre portefeuille mu mën a jigéen ñi mën a xale yu góor mën a gérer mag ñi. ndaxte sëñ Abdoulaye du génn sama gémmiñ dana am. alhamdulilah xanaa lu ma génne wut ci sama gémmiñ. yow loo wax moom Dieng. te it sëñ bi maa ngi ñaan président Macky maa ngi lay yóbbante président Macky Sall nee ko na dimbale patron de presse patron de presse yi dimbale journaliste. wax naa ko barki dem ci El Hadj Assane bi sonn na lool lool lool ay bal doon takk journaliste yaa ngi ci bu ay bal dee takk ñu ngi ci biir bu jaasi am ñu ngi ci biir bu ay xeer am ñu ngi ci biir amuñu dara ñu ngi nii amuñu dara dara amuñu ko. 2016 bi président Moustapha Cissé Lo bi nga xam ne mooy suñu leader tuxalee votam Dakar ba léegi ku waxal yàlla xam ne parti bi nag namm nañ ndey ji Cheikh joo xamante ne si saa bu wootee ñëpp daw ñëw te loolu jàpp naa ne taxawaay bu ñu nga am nii boo ci teggiwul sa tànk da nga dem ba mbooleem njabootu président ñi ñi tuddoo ci mouvance bi yépp dina ñëw toog ci sa kanam ñuy xalaatandoo di xalaatal parti bi ànd li jëfandoo pour ay mbir yu nekk ci suñ kanam ñu mën ci ànd pour am doole loolu gis nañ ko ci yow. visite de chantier bari na responsable yu nekk fii kenn amut fitu yëkkati saw dàll fii ne da ngay dem chantier Macky Sall yi di ko layal xalaatoo mel ni yow yaa ko fu mën a wax te ba nga ko waxee fu wér nga ko teg ndax lépp ci ay kayit la nekk lu waaye gàtt gàtt xam loo contre contre Macky Sall xam nga ne hôpital Matlaboul Fawzayni bi lam fa def ay milliards la duñ ne nag yemb na nii nii nii 100 pour cent bañ na 9 milliards yaa ngi ci waaye procédure bu 9 milliards la te bu dee 9 milliards te ko fa dem gis ko loolu moom bakkan lay laaj. hôpital niveau 3 bi ku ne xam na ne 43 milliards la ñu wax xaw ma 33 milliards lu mu ci mën a doon ku ne xam na ne la yow da ngay dungoom sama nga fa. assainissement liñ ci liggéey procédure bi ci 5 ans yi lu mu gàtt gàtt defagu nañ ci presque 40 milliards yoo xamante ne si mi ngi ci dëkk bi ñuy suul te loolu man lu ma waxee bakkan mag da leen jëraluma ko. te gis nañ ko fi foofu it dinaa ci def benn parenthèse si ñëpp ñu dimbali ñu ci ndax màggal gi mi ngi ñëw te commission màggal Touba dégg naa ñu ne toog naa ci réunion ñu wax ne lu dale un mois avant màggal dañoo bëgg bépp travaux buy amati ci dëkk bi nañ ko andile ba màggal gi jàll parce que gis nañ moo leen di indil yenn faay te ma gis ne actuellement nii sànc assainissement boobu taxaw na te màggal bu nu wooree bu naa ne ndox incha allahu rabbi daal di commencé jublu ci ay CRD jëm ci yëf yi fan kon gën ngaa yàgg 3 mois ngeen amaat ci programme lu ngeen mën a liggéey wala kat te loolu bu ko seetee nawetu ren bi buñ ko xoolee gëm naa ne man ca di fukki fan yu digg wa lay taw te bu ca tawee tabaski ak màggal yëpp ci diggi nawet bi lay nekk te nawetu Touba moom ni muy mel ak assainissement bi donte Touba ci kanam liggéey nañ ci yeneen organes yi ngi ci waaye xam nañ ne bu fekkente ne. assainissement bi yëmb ba booba jafe-jafe dana kon loolu ñu ngi la ci tàllal loxo nga soññil ñu ko ngir ñu mën a xool ñu ci mën a retrouver waat ba loolu mën a dox